Zarko. waaw daan na Diène Kairé. Ndaw loo ci wax. waaw digganteem ak moom Niang Ndaw mu nekk combat boo xam te ne Zarko est-ce que xam nga ni ba ba galee dalee bëri ba léegi mu ngi soog a am combat dër bi mu ngi soog am combat boo xam combat soog. combat xale bu nekk ci yoon. koo xam te ne yaakaaru géejawaay la. Zarko daa mafia de. dafa am mafia mais gud dégg man la guddi yi Ndaw. Mhm. mafia bu yéeme la am. ñaabu ndaw yow laay waxal booy bëreet bul nangootu benn tapet di la topp na la nante yi topp jàmbaar yi dar la dëgg la ñu nga doon àndal àndal ak ñoom ba tey mais sa combat ak Zarko mhm. nante yey nekk sa ginnaaw te nante yëpp dinañ génn topp sa ginnaaw la ilaha illallah pour war na leen rek Zarko lu muy xalaat ci mafia ak lu muy ruubee gars yi ñaabu ndaw kenn du ko ruubee noonu ndax ndax ndax nante yi nekk ci ginnaaw yow su ma la nee papa Abdoulaye Fall bu Guédiawaye ñoom papa Mbaye ku la ñu yàq ci àdduna ka mooy dugg si ñooñu di leen ruube ku mel ni Bou Siteu ka mooy ruube Bou Siteu bu diibi mafia bi moo yor ñàkk rek mais mais nag Zarko Zarko ak ñaabu ndaw tiit naa de bu combat bu yomb la nag ci kan ci ci combat bu yomb la si ñaabu ndaw maanaam ñaabu ndaw li muy teg boppam di ko di di liggéey. maanaam ba tey daje ko kattan bi ñaabu ndaw di yor. ba tey dajewul ak adversaire bu mel noonu noonu comme genre kattan yu yu tolloo yooyu. moo tax ba ma nee Zarko ne daanu pare ñu ne Zarko Zarko dafa mag la. ñaabu ndaw day daan Zarko ba pare ñu ne ak xamoon nañ ko. booy bee ko ëpp doole te noonu la demee booy bi dama koy gis muy teg boppam loo xam te ni wallaahi Zarko bu pressé loolu. bu wàccee yéeg wàccat doo du jógaat te ñaaw bu ndaw day day day ay ay vingt vingt séries deux cent kilos mu yenu ko maa ko gis nii Maroc mu yenu deux cent kilos teg ko fii wàcc moom presse dóor ci vingt séries loolu punkal bu ko ci def nga feebar te dootoo dootoo wérati ñii ay mbëru démb lañ man mbëru démb yi dawuñu sama yaram waaw laa ilaaha illallah xar mbëru démb la te naa ko dóor dóor maanaam dinaa la dinaa la indil milieu loo xamoo la xeex xeexu milieu boobu ñëwoo milieu ñëwul milieu maanaam déggu ma ba may dox milieu waaw moom doxul milieu milieu li ma ci xam-xama ko damaa dox milieu boobu ñoom juddooguñu dëgg la moom mook Laurent Ndiago Laurent Ndiago wax na ko de nee ba muy bëre moom juddoogul mais ma leen la lan moo tax nga ne yow da ngaa ñëw tànn fukki xale ci làmb ji ci ngay tabaxee sa kër nga ne xale yi ëpp coow da nga ci tànn fukki yoo xam ne da nga leen jàpp tegle leen daan leen tabax ci sa kër parce que xam nga ma loolu ah. damaa dem équipe nationale andi ay médaille d'or kenn recevoir ma président woowu ma Amadou Sall kenn woowu ma Amadou woowu boo woowu ma mais ma nekk rek monsieur Guèye la ilaha illallah moo tax kii combat yi ma jël ci laay daan ñoom ñëpp dama leen daan ñoom dama leen arrangé daan leen. pare ci ñoom. maa leen mën. am na ku am na ku lay woo de. amaye mama fulo ne banna banna. ama sama xarit la naa taa tëjee bi ah. ba tala samba yi waaye dama dàgg dama dàgg nga ne. bu ma yàqal nga ne daal nga ne daal. dafa bippe Ama Baldé Ama Baldé ñëpp xam nañu maa ngi moom. ñooy ànd chaque jour. Eh, kon Ama Baldé maa toog moom bul bul bul bul bul sekk kii dara te parce que dañoo nekk ci contrat Ama Baldé sama Ama Ama du ma andi si combat boobu nga naan ma Ama moom moo andi si combat boobu mais kii lu muy wax nii xam nga wax nii Ama mën Ama yëgagul ni ma ak yow ay bëre Ama yëgu yëgagu guko. Ama waxal Ama yëg yëg nañu yooyu bëre bu combat bi nag combat bi seeral na trop nag hmm? combat bi garaaw na trop dafa garaaw maanaam combat bi àddunaa koy xaar man démb li ma jot ci ay message manam ba mu daanee Roi ci si guddi gi li ma jot ci ay appel ci aduna bi ñepp naan mo di ak Tafa Gueye 2 Roi Ndiago moo leen boole te parce que da ngaa gagné Roi kim boxing bi moom mu daan Roi Ndiago te xolal ñaari bëree sax bokul mais ngay bëri ko xam ne mag la. mais mag la mais malik ndjay comme manam comme malik ndjay rek mo taxawat deug la manam ñi dama ne manam ñi dama lay ni noosee. yo xolal mag magi yi ci am dama lay noosee. kii dama koy noosee jour boobu ak jour boobu nag ñëw nag nekk beneen nit parce que. waaw sa combat bi passé waaw la doon xaar mais indi woon lu garaaw. indi woon lu garaaw te bii nii xoolal bi tam combat ma Roy Ndiago te leer na la six jours laa ko entraîné coach su Gorée. waaw coach su Boy Niang Dakar fii nii. Ndiouga Kébé moo wàcc six jours dara nekkul ci man xam naa ne ak niveau bi ma topp. topp publicité yi xam nga parce que léegi sama niveau léegi gis nga maa ngi publicité di publicité semaine bi bañ naa cinq cent mille si publicité yi waaye fan yëpp maa ngi biir foire fii di ko toj waaye ay frigo ay télé aztec lépp lépp laa am instant yi ma nekk di liggéey fatte ah, Fadam comme sànq lu ma la wax Fadam sax xam nga ma ah, entraîné yow xam nga loolu sax mais combat bi dafa nekk combat boo xamante ne nii mm-hmm. combat jeunesse bi la combat géejawaay ndax géejawaay bi léegi ñëpp gis nañ Bou Siteu fu mu yóbbu turu géejawaay dëgg la dëgg la ak fi sama niveau toll bu ma waxee léegi même pas vingt quatre heures mu am cent cinquante millions fii ah. loolu kam am ci mbër yi ak si niveau bi ma toll kenn amu ko kuy taxawu jeunesse bi mais combat bi lan lañ ci mën a xaar ci Bou Siteu ci lu bees combat bi li ñuy xaar sànq di mais dama bëgg laaj ci làmb waaw bi lan lañ ci mën a xaar ci loo xam ne nii Bou dina ko amar yore ci wàllu làmb maanaam combat bi dina nekk combat boo xamante ni comme Balla Gaye 2 ak Yékini moo ñëwaat. ndax lan. maanaam ci maanaam ki si ki may dajal xam nga Balla Gaye 2 ba muy bëree Yékini Yékini mbaru démb la. Yékini Yékini rey paa yëpp. <laughs> dëgg kii nag dafa kii kii dafa bëreeg ay Mbaye Guèye. Mhm. ay Double Less. Mhm. bëreeg ay Simel Faye. ku xam Simel Faye moom Mor Fadam. dafa am lu tax seen combat taxawul. kon koku nonu mom mom mom mom yërëmul boppam bàyyiwul làmb. nee na nee na dafa am ñaari terrain ca ñag te da koo bëgg tabax te dal la ci la koy mëna tabaxé tabaxee. man mii nag Tiwaawan peul la am terrain Basiru Ka moy ma fa terrain ba légui terrain bi tëj sax defaguma ko. sa nga ut birig ne tëj ko ni ñepp xamné sa ala la lolu sax defaguma te gëm na ni lolu alburaax fayna fe joy bobu bu xam nga ne combat bi boo ko daanoo dina yàq sa coow lu bare bëri bëri. su ma ko. daanoo daanu maanaam bul xalaat loolu ça fait diamétralement opposé ak paa nga ne day daan Bou Siteu. maanaam Fadam xam nga yaa ngi may gis ne combat bi. instant yii taxaw na fan da nga naay yaram bi da mag màgg. waaw maanaam balaa avril. balaa avril dëkk bi ñëpp a may dugal di wax état bi ma yor. Hmm? maanaam combat bii dina entraîner man moom instant yi maay mbëru jeunesse. mais mais combat bi. xalaatatuma supporter xalaatatuma dara regroupement bu Siteu ci komba bi ndax man ñëw naa sa regroupement fekk gars teg lu mat ay dix mbana. ay dix mbana ay dix bii nag dinaa teg vingt cinq mbana. Hmm? te parce que bi may dajal la mbëru démb laay dajal maanaam xam nga yow faram yenn saa ma wax comédie ñëpp kontaan. Hmm. mais yow leer na leer ni may comédie na xoolal le 2 décembre la 2 décembre bi yàggul. Ah, waaw di nga tëj dañ damay comédie mais ay bu ma jëm bu ñu tëjee en centre yoo xam nga sax. Mhm, mhm. foofu comédie du fa am dara du fa am. bu Siteu gaynde bi la gars yi di gis ak nante yi nekk géejawaay. ku si mel ne papa Abdoulaye Fall ñooñu yabu ma leen. dëgg la ku si mel ne Pam Mbaye bu géejawaay. yee Mbaye sama papa yooyu ay ñoom njoogu beey. ñooñu ñoo nekk sama ginnaaw guddi yi te ñu bëri xamuñu loolu. nee bu mën nga di comédie neexalal mais ay bo démé ci digg geew gi motax ma maa ngi doon amlu paalaay daa am lu ma dee pambay bu way am lu ma dé mhm. ndogu bé am lu ma dé moo tax su ma duggee ci geew manam dinañ gis beneen buusite té té ñoo sax yabuma leen yab bo xamante di tok di baña entraîner jëm ji ki dina ko liggéey doy war ah. ñaabu ndaw guddii est ce que ñaabu ndaw légui ma ngi ñoy and légui yaa ngi ñaabu ndaw. ñaabu ndaw léegi. te bëri naa jëlee aéroport. yaa ko jëli ji aéroport yaa ko jëli ji. instant yi toog nañ waxtaan démb ci guddi maa ngi moom instant yi léegi maa ngi ñaabu ndaw ñooy ànd. mais dama gis ne sax daal suñu oto di dem diine di liggéey lu mu def ma def ko. léegi dama gis lu mu yenu ma yenu ko ndax jëmm ji. ndeysaan. kii kii Fadam. waaw kii maa tax mu dugg Kër Baye Ndiaye fii dugg fi yombul <laughs> dugg fi. yombul kay kay Moussa Faye kay toog

léegi man daam lu ma la bëgg laaj Zarko dana du jël ñaabu ndaw